kulewa assalamu alaikum APRC mune mune bi net le wax na assalamu alaikum wa rahmatullah mbokk yi ñu seetaan fu mu nekk nii former président Yaya Jammeh moo nekk di wax si li nga xam ne GDC am fi waaw ba léegi rek li nga xam ne moom di ah, eh, ah, former nekk di call way fu nekk network bi leerul gars ñu network bi moo baaxul si mbokk yi ñu nekkal leen surtout saare bool bi leen di wóor nag képp luy xew nekka di nag wóyam di la gaay teg dinañ leen nekk di leen di wóor nag fan yi naka la gaay di def laa nga xam ne mooy former président Yaya Jammeh di leen waa di bu war a waxaat Gambia

mini agrobiriji ka wata tawalta sunaren ka nofa ani miyamen koye mansikerji soto walemu ka kafu abac ani tirisi ani gap walebe nin koye be bayre nin gambe koyo saninen wo koye mata bram walatina aɓe loyanin koyo akembe tawalla lafta nin kumole sinde algoyma ka fole koye bamin mansala ɓe diyamala anu aɓa mbe kontona momomin ɓe sara goyo tan réew mi te leen seen kattaange sànni ko si APRC si ak Kaap loolu la président Diallo kon da ngeen yeewoon sasana si mu ah jërëjëf léegi fu nekk nii ñu programme bi li ngay jégalu lépp internet bi moo toog jërë jëf. waaw ba tey rek fu mu nekk nii dañ nekk di setul li nga xam ne mooy seen programme agenda bi gars yi ngay wax ak ban toog Wow, balik direct. comme ni leen ko waxee woon Gambian Talents TV ñoo leen fi nekkal fu mu nekk nii Yaya Jammeh koolam bi dugal na pour wax ak li nga xam ne moo di askani Gambia bi fu mu nekk ngi déglu lu mooy wax pour ñu ko si kaw ñëpp déggal li nga xam ne loolu la Yaya Jammeh di wax nag na leen déglu xoola Yaya Jammeh annabiite a gente kadi safanati a adida am leydi len neɗa mune womin ko e pas transité ba léegi rek jàmme ñu ngi ko bugg a connect pour ñëpp dégg lu mooy wasi bluetooth bi tey rek ah, si ay time yu tuuti rek gars dinañ connect ki nga xam ne moo di former président Yaya Jammeh pour mu wax li nga xam ne loolu la amal Gambien si ah, fu mu nekk na ñëpp a ngi toog ne selaw di xaar ki nga xam ne mooy former président Yaya Jammeh moom mu wax li nga xam ne loolu la bugg wax si fii nga xam ne mooy ah, Saare Bojo ah, kële ngeen gis. So they, not, they want now for me to translate it in Mandinka. I say they want me to translate it in Mandinka now. Mobile, mobile, no, the mobile. Oh, no, no problem. Ah, no problem. Mobile, mobile. Yes. Wow, big and yay, young man. Young man, You people know that I started the project